ça va. na nga def ça va. fa yëngu liis. fa yëngu liis naka nga def. ah oui ça va. ça mu ñëw ci man kenn ñëwul ànd na ma ràññee sama xaalis ma toog ci kanam xañ naa ni ko jiitu fii ay ati ati jox yóbbu naa Europe jël naa oto joxe naa ko xaalis wax naa ko jënd oto jëndati oto mais dafa am loo xamante yàgg lu baax ñàkk fayda lay si. ñàkk fayda lay mais bind yi wallaay talaay gis naa ko dem ci guddi wala dem ci guddi dama yeewu ñoom ma ko ma leen pare jël jël ma leen expliqué histoire bi ñu demee ak ñu li ma ci métti kay mooy déplacement bii nga def moo métti ndax yaay sama kilifa soo ma woowoon ne ma demal jëli Pawlish wala kii ma dem jëli ko déplacement boobu moo métti da fekk nga nga ma la naw yëpp xam nañu mm-hmm. man yaay sama eh, dama nga jëli Pawlish ma def même su ma demul dinaa yónni kër mu dem jëli ko indil boobu moo métti su ma doomu doom nag mu njëkk mu rëcc dem waaye bu demee day dem kër bàyyi amul solo. waaw yàlla baax na yàlla na yàlla leen. yàlla na leen yàlla te eh, aaral ma waaw yàlla bu leen dara topp na. Eh. waaw. waaw dëgg la ci man dëgg la xam naa fi ngay waxee. ñoo ñoo mel ni yow yaa ma ko def. Hmm. mënuma laa bëgg dama damaa bëgg rek du leneen bëgg la rek. Hmm. ndax barke salaatu yow la nga def lu jàng. waaw waaw. mënumaa def lu la suñu. waaw waaw yaa ngi jëloon sa nekk nga bëgg yaa ngi defoon quoi. bilaay waaw baax na waaw baax na. yow yéen sumay doom ngeen. waaw yàlla na leen yàlla sàmm aaral ma leen.